waaw ginnaaw ba ñu waxee ki nga xamante ne nii mooy Vieux Ndiaye nee naa la du ma xuus nànk te dew ma ci ki nga xamante ne mooy ménagère bi ma daal di waxtaan ak moom ñu daal di ñuy wax rek naka la ñuy paree soirée bi ah ba tey salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi lay ziar bu baax. delloo yaa ngi am jàmm. sant bu wéer a wéer. ni mooy Almadies. Mhm. fas mooy Vieux Ndiaye ñu leen ngeen paree soirée bi. waaw bi pare nañ ko ko war a pare rek répétition yi jaar na yoon jaar na yoon voilà te yéen itam jàpp ngeen ci ngeen ci war a jàppee. espérons que wax dëgg yàlla dina am réussite incha allah. xam nga ne yaa ngi pare olala bi. mais jamono. dafa xew de. kon nañ daa dem olala rek. <laughs> ba mu neex <laughs> wa ma tay dañu daal di dugg ci biir rek daal di dem óolu oh laamee bala ñoo dem amna ay xalé jigeen ñu taxaw fi nak ah dama leen di daal di laaj rek naka la ñuy paree tamit soirée bi chéri na nga def ah, ci loo nekk ça va yaa ngi si jàmm maa ngi si jàmm waa xam nga ni nga def baax na wa gis nga dañuy ñew rek mbay jëlal ma xalé bu jigeen bi nim def tam jàppale rek fi mais fi nga génn baax na dé waaw nii la man maa ah? madame Khadim Seck yaay madam Khadim may madam Khadim madam dem mi sané ko def la ka saf <laughs> naka nga paré soirée bi wa soirée bi moom paré nañ ko niñ ko wara paré pare ndax vie moom moom suñu waay la sama xarit ci jëkkër la sama jëkkër ménagère am la dañ di ñëw rek may ko loxo jàppale ko def ba mu baax waaw ah, ndeysaan gis naa loolu def nga ba mu baax waaw léegi bëgg naa ñu ñëw léegi jaar yéeg si kaw ñu daal di olala oh ba mu neex rek <laughs> ba tey topp ma ñu dem <laughs> chéri na nga def ça va may fi ba yaa ngi si jàmm sant yàlla bu baax baaxee boo ko ah, non non xeeb ma ko ni dara ah, ni nga def baax na de waaw gis nga bañ kenn ma yaa ngi fi laa la nii merci man daal bëgg naa xalam bu jigéen bu rocc tayam di def noir bu baax man damay bëgg lii <laughs>

sista maman laa lay tegal ni du ay fo sama cameraman nag ma daal di topp nànk rek ma daal di dugg ci biir ñu daal di xool vie naka lay paree tey soirée bi defee rek ah, noonu lañ koy daal di defaatee rek neenaa naa leen du ngeen ci wér benn yoon da ngeen siy daal di ànd ba tey ak sista moment rek mu leen di daal di bëggeel ñi ngi woon ci biti nag tey ji ñi ngi nii si kaw dañuy daal di doxantu nànk rek daal di yéeg ci kaw daal di xool vie mbaay naka lay teg si table bi sama caméraman bu ñaaw bi mbay dollar topp ma ñu daal di yéeg ci kaw allez let's go acca topp ma sama man ba tey rek ñu ngi nii ci bunt bi fi nga xamante ne nii foofu la ñuy jaayee billet ba tey ñu ngi fii rek daal di taxaw ah ba tey rek sama caméraman est-ce que du daal di jël ñii rek daal di waxtaan ak ñoom ci lu baax ah. loolu dina la neex dama leen daal di jël rek daal di waxtaan ak ñoom ku baax na nga dem. saa soxna si. waaw yaa ngi si jàmm. waa maa ngi si jàmm bu baax. dañoo ñëw fii si soirée Vieux Ndiaye bi daal la fi fekk ñu lay laal lan moo waraloon sa teewaay. waaw man nag ci staff Vieux Ndiaye laa ne man maay Idi. yaay Idi voilà man maa yor affaire organisation bi. kon daal juumu ma daal benn yoon. non mosoo jum. Ah. <laughs> waaye yéen a ngi pare olala bi rek. waaw gis nga gars yi ngi ñëw de ñu ngi koy pare te du yomb tey incha allah mu yomb de. non du mos a yomb dañu may dara. duñu la may dara <laughs> tey mi ngi noonu rek si sa ah, ah ñu daal di dugg si biir wala nga daal ñëw fi ma daal di waxante ak yow yu baax sama yaay ji si sa lay doon si sa ah, kaay waay. <laughs>